بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكو جلتي ñoo ngi dellu di sant di julli ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam gannaaw biñ leen nuyoo dellu sewaat nañu ci kàttanu sunu borom ak dimbalam ci bind biñ daan am dimanche bu jot ci waxtu wi xadiisu dimanche tey bi nii la tëddee an abi hurayrata radiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أخرجه مسلم جلنا أنت أبي هريرة رضي الله عنه نينا ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم نينا أقرب ما يكون العبد من ربه fijambi diga ne jege ñeeboroomam o ho saaji ɗun moye busujoote fa acciru du'a ne ngeen baril ñaan ci sujoot hadis bi mbokk jullit yi daf ñuy joxoñ nañu ndëkkite yow jaam bi li muy def te boroomam santaane ko ko loola day tax mu jegeñ boroomam lépp nag moo xam ndax jaamu yàlla bi muy wax la wala jaamu yàlla bi muy jëf yooyu yépp day tax jaam jegeñ boroomam te xam ngeen ne meem ci àdduna koo xamante ni kii xam na wala mu yor wala mu am ay ndomba tànk ñi ko wër ñépp li ñuy bëgg mooy jegeñ ko parce que boo ko jegeñee buy sédd ñiy ëppale ca ngay bokk te moonte day dafay jaar rekk di dem la mu yor lu tuuti la par rapport ak la nga xam ne moom la sunu borom yore te doyewu ko lu dul joxe kon nag nit ñi ni ñuy xëccoo pour jegeñ nitu àdduna yi pour ñu sédd leen seen ndomba tànk yi nit ñi ni ñuy xëccoo pour jegeñ borom àll ji pour ñu séddaleen ca la ñu yore lu raw noonu la ñu war a xëccoowee pour jegeñ sunu borom yàlla subhaanahu wa taala jegeñ yàlla nag dara du ko jox jaam bi lu mooy mu jëfe li ko yàlla digal li ñu yàlla digal nag bari na lool te lépp mën nanu ko àttan nanu ko ndaxte yàlla du teg jaam lu mooy lu mu àttan yooyu mu ñu jigal bi ci gën a mag gën caa rëy ci wàllu jëf mooy julli ponk lislaam yi mooy ñaareel ba ponk yi ñuy jëfe moo ca jiitu mooy ponk bu ëpp bu ñuy def ci ponki lislaam yi mooy ponk bi nga xam ne jaam bi bu ko dee def daanaka cëram yépp bu nekk day joxe wàllam si jëf ja mooy jaamu yàlla bi nga xam ne zikkar yépp daanaka moo ngi ci biiram mooy jaamu yàlla bi nga xam ne moom lañuy ñuy defal jaam bi tàggoo ko moom jégbal ko boroomam mooy jaamu yàlla bi nga xam ne moom la yàlla di njëkk a réglé si jëfi jaam bi bu yowmal qiyaamee su baaxee lépp day baax dara dootul ñaawati parce que doole bi mu am la moom julli su fekkente ne xool nañ ko baaxul duñu xooli yeneen ya ndaxte bu julli baaxul li ci gannaaw mënul am doole ba yàlla xool ci yërëm jaam bi tàbbal ko aljannaam moo tax julli boobu mbokk yi nu war di ko fonk ndaxte mooy buum bi jokkale diggante jaam bi ak boroomam nit ki bu taxawee di julli na yëg ne mu ngay déeyoo ak boroomam ñu bëgg nag bu koy def li nga xam ne mooy ruuxu julli di toroxlu mu bàyyee xel la muy def bàyyee xelit la muy wax ndax torox lu mën a judd ci julli bi ndaxte jaamu yàlla yépp lañ ca santaane mooy nit ki bu koy def mu yëg ci boroomam yàlla subhaanahu wa ta'ala bu ko ci yëgul rekk yëf ya des na kon julli boobu mbokk jullit yi yëg leen ne mooy jaamu gi nga xam ne yonent yi fi jaar yépp def nanu ko ku nekk nag da koy defe ni la ko yàlla subhaanahu wa ta'ala santaane si jamono jooju bi ko yàlla nammee santaane dafa oote ci kaw asamaani juróom-ñaar mu jox ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ñëw jox ñu ko bàyyiwul kenn nag nit ki bula la fekk mu nekk julit moo xam ndax xale la wala mu nekk mag moo xam ndax dafa feebar wala mu wér moo xam ndax dafa tukki wala mu sax moo xam ndax dafa nekk si jamonoy jàmm wala mu nekk si jamonoy guerre moo xam ndax dafa nekk ci jéeri ji wala mu nekk ci géej gi wala mu nekk ci biir suuf ci biir teen yeeg ci biir pax yi su waxtu wa jotee danoo bëgg la muy def mu tege ka nële mu dal di joxe waxtu wa su noppee continuer la nga xam ne moom la doon def julli boobu nag bokk jullit yi ah wax naa sànq ne buum la buy jokkale diggante jaam bi ak boroomam nit ki nag bu ko dee def dafa am foo xamante ne fii ci biir julli fa lay génn a jegeñee boroomam mooy su fekkente ne sujoot na gis ngeen julli ay sëgg la ak i siggi maanaam ay action la ay acte la yoo xamante ne yii jaam bi da koy posé nga xam ne bu dul julli rek nit ki du ko def ci julli la koy defee te du ko déranger du déranger ñi nga xamante ne ñoo ko wër xam ngeen ne nit ki bu nekkee ci biir këram ak njabootam dina ruso sëgg moo xam ndax ci ronu lal bi la wala ci ronu armoire bi parce que loolu du teggin mu koy def ci diggante moom ak njabootam mais xoolal bu julli jotee mu jiite njabootam dafay sëgg seen kanam muy rukon def bi gën a garaaw sëgg muy sujoot daal di teg appem yépp gannaawam nekk ci kaw boppam nekk ci suuf loolu nag ki mu koy defal kenn dong la mu yàlla subhaanahu wa taala moo tax fi jaam bi rëppeele ay cëram maanaam juróom-ñaari cër yépp teg jéem ci suuf wan boroomam ne ko xawma mënuma awma li ma am yépp te fonk ko rëppéelal naa la ko te yow rek laa koy defal duma ko defal keneen boroomam kontaan ci moom lool xamal ko ne jegeñ nga ma lool ku jegeñ nak waxal sa soxla ñu daal di la ko may yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañu nag yëg leen ne jaam bi fi muy gën a jegeñee boroomam mooy bu sujootee kon nag na ngeen bari loo leen di ñaan yàlla ci sujoot ñaan gi nag nu bëgg soo ko dee def na bari lool ci sujoot bi fa ak akthiru la wax na ngeen bari addu'a na ngeen baril addu'a a ñaan ñu bëgg nag booy ñaan nga seet ñaan ya yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ñaan ci sujoot te mu ëmb lu bari soxla yépp nga di ko ñaan loolu day moo gën soo ko mënulee bu la neexee nga tëggal sa bopp ay ñaan ci làmmiñu arab nga di ko ñaan soo ko mënulee it làkk boo ñaan rek yàlla dégg na ko waaye lay priorité te gën mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ñaan su fekkee mënoo ko nga ñaan ci arab soo ko mënulee nag la cay topp soog caa topp kon bokk jullit yi liy résoudre sunu problème yi mooy julli rawatina su fekkente ne noo ngi kon na ni bari lu ñuy ñaan sunuy soxla su fekkente ne ñoo ngi sujoot am na nag ñaan boo xam ne daa tënk yiwu àdduna ak alaaxira muy allahumma atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adaba annaar yàlla ñu ngi lay ñaan nga may nu lépp yiw ci àdduna ak lépp yiwi alaaxira doo wax rabbana parce que ku sujjoot dañ laa tere nga ñaan ñaane alquran te rabbana atina fi dunya xasana ñaanu alquran la da nga naan allahuma atina fi dunya xasana ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan na ñaan guni demee kon nag yal na nu yàlla may ñuy julli julli bu sell waaye bu ñu sujootee it mu may ñu ñu ñaan sunu borom te sunu xel nekk ci moom te ñaan yi nu koy ñaan yàlla na ko yàlla nangul wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain